salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi taamu la référence internationale daal leen ak jàmm ci xabaar yi bu ngeen taaxiloo tuuti rek ñu jukki leen ci gën a fës bokk na ci dootuñu mayeti kenn muy génne ab audio di ci wut bës wala bokk di jéem ne la wala nit ñi képp ku ko ci defati daañu la topp ba teg la loxo yóbbu la fa mbaxane doone benn loolee di kàddu yi gornoor bu Kaolack gannaaw bi ab waay génne ab audio doon wedd kaa am ca Bongre nga xam ne waa ji ca banque bu BICIS la doon liggéeyee banque ba sax nag tëj nañ ko looloo waral Cheikh Tidiane Diagne amal faab doxantu nemmeeku daa ngeen ko dégg ci biir xabaar yi contrat contrat bi ñu xaatim diggante Sénélec ak Akilee ba loolee di am Pape Mademba bi tey doonagul woon directeur général euh, Sénélec waa mouvement crème ba mu jiite ñoom ñoo ko xam xamle gannaaw ab gëstu bu yaatu ba ñu def jaarale ko ci jumtukaay xarale yu yees yi boole kooku dañu leeralal na mbir ma tëddee daa ngeen ci dégg seen porte parole ba di Insa Diouf li ëpp ca malade ya ñu wax ne dañoo amee jàngoro ji di coronavirus ca Touba Mbacké seen ak doxalin doy na waar lool bu ñuy euh, bañee bay wut ku leen bañ leneen amee ñu doomu jàngoro ji ña ca des la ñu def mooy gàddu seen ak bagage daw wuti fa ñu la laqatu ji leeral yi daan ci ànd ak Mamadou Moustapha Mbaye ca bitim réew Cheikh Tidiane Sarr moo ñu fay demal xabaaru tàggat yaram daan ci ànd ak Serigne Moussa Kane kooru ak gay daan ci ànd a Bara Diop di yëglekaay yi xëyee tey ji mbiru El Hadji Seydina Omar Cissé lay doon bu ñu lépp yemee mbokk yi xabaar yi daal di buur ñu ñaanalante wala ta loolu ñu di kër yéen ci yaatal gi ak faram fàcc gi gannaaw bàkk bi lay doon Le journal Ndeye Khady Sadio dalee nag jàmm mbokk yi yéen ñi tàmmul ak 90 international ngir ay xabaar yu leex te wóor kaddu gi di bàyyeeko fii ci immeuble Cheikh Imam Assane Cissé studio ale Momar Lo Kodou Seck madame Keneme moo janook man ci wàllu machine gi ba dégg-dégg bi mën di leer ñu dooree kook ñaareelu cas bu Kaolack am ci mbes mi di coronavirus ab waay la bu am lu ëpp ñeent fukki at di liggéeye ci banque bi sis bu nekk fii ci Kaolack banque ba sax nag tëj nañ ko loolee nag jural gàllankoor ay client am Cheikh Tidiane Diagne man gëj naa fi nag si gab bi rek laa ñëw ci buntu banque BICIS bi nekk ci diwaanu Kaolack la ñu fekk ay clients yoo xamante ne dañoo jaaxle lool amuñu fu ñu jëm te itam xamuñu nu ñuy def ba daal di retirer seen xaalis banque bi dañu ko tëj ràpp benn gardien rek ngay fekk ci bunt bi. nga ne ko compréhensible nga comprendre leen am ñoo xam ne ay ñooro lañ jóge nga comprendre leen bu ñu déconné sa kaw mën leen jëm tontu. man parce que le matin am lu nekk mais nag toppatoo ma ah. pleine fois parce que doo jógee Nioro en tant que père de famille nga yaakaar banque jëndati sa xaalis tu viens à la banque la banque est fermée. démb le gars effecté mercredi ou bien je la ko gën waaw passer. askan wi jëm marché géej ki jàpp marché zeng ba fi nga xam te ne di centre commercial léeg-léeg nga gis oto yu romb taxaw di xool banque bi ndax obinam naam déet ci wetu rond-point bu Tusaw soxna si fa leen ko fekk mu taxaw. ci feebar bi baaxul woon nit koo am jàmm yàlla na ko fi yàlla indiwaat loolu rek mais amuñ benn problème ñu sant yàlla. xam naa ko kay bu baax. gardien bi di wuyoo ci turu Adi Jaxate mu ngi ñuy xamal ne ñett ci ay agent wam daal nañ leen di yóbbu quarantaine jamono ji bi nga xamante ne jàngoro ji dugg na ci biir banque bi. les trois seen trois agents yëpp ñu ngi quarantaine la di tax yow demoo quarantaine. non parce que war ma fekk événement bi fekk ma moom mii dem na sax ba wax ñu turu ki nga xamante ne moo yor jàngoro ji tey liggéeyee ci banque bi waaye li ci am solo rek moo di ne ci direction bi la nekk ndax kilifa fële fii fa mu dëkkoon ca Bongre Kaolack ay xibaar di wax ne moom rek moo fa nekkoon bu ñu xoolee nag ñi nga xamante ne ñëpp am na ak ñoom contact ñu ngi toll ci fukki doomu aadama ci biir Kaolack ñoom ñëpp nag fi mu ne ñu ngi ci benn hôtel de la place bu nekk ci région bi moom mi yore jàngoro gi nag mu ngi ci hôpital dalal jàmm bi nekk ca Ndakaaru ki nga xamante ne moo defoon audio bi yónnee ko ci réseaux sociaux yi rawatina ñiy déglu WhatsApp polis teg na ko loxo niki démb ci digg bëccëg gi. ca banque bu BICIS ña fay fayee ko sax nag jaaxee ko ci lii di carte gab ñoom nag am nañu jafe-jafe ngir jot seen ak xaalis mu metti lool ci ñoom rawatina ñi nga xam ne ay retraité lañu Cheikh Tidiane Diagne tàllal na kenn ci ñoom micro ma di leen laaj ba xam ndax jot nañu waawam déet. jotuma

man xaw exactement il s'agit de kii bu ma xëy na bu déggoon turam ma xam ko mais actuellement xaw ma kan la dañ ma ne rek un agent de la BICIS bon mun loo wax exactement kan la il faut au moins ñu confirmer la ne kii la diw la diw la nga mën a xam kan la. xanaa yàggoo ci banque bi. yàgg naa fi de depuis ouverture bi maa ngi parce que banque Dakar laa ne bi mu ubbee ma transféré suma solde suma compte ñëw fii quoi ah bon man vraiment mon problème c'est la carte il faut quand même ma xam. quand si tu as des engagements au niveau de la banque. engagement boo ko amee am yenn découvrir. yi. mun loo xam exactement su da nga ñëw ci service clientèle. ñu vérifier la ne la tu as temps tu as droit à telle somme. nga vise jël li mais si mon ami nii. amoo ben agent bu le confirmer ne lii nga war a am wala nii. léegi fi da ngay tâtonner rek bu euh, garde bi confisquer sa carte. Maintenant, na pour les retraités maintenant, ah non su fekkee désinfecté nañ mettre ils sont en quarantaine ah mais il y a pas de problème hein, comme les autres services mi ngi noonu cas bi nag donte am na ba ñu tëj banque ba ay client am di jànkoon ca lay jafe-jafe terewul ab waay diggante naab audio doon ko weddi gornoor ne loolee dootuñ ko mayeti kenn képp ku ko fi defati daañu la topp ba teg la loxo yóbbu la fa mbaxane doone benn gornoor ba Badara Mbeng ak Cheikh Tidiane yi loolu li ma ciy wax rek mooy kooku li muy wax noonu dara amu ci. daara amu ci ensuite booy wax da wax loolu leer boo dégloo audio bi dafa mel ne moom muy juddule waa ji ñoo defoon lii ñoo defoon luy ñoo àndoon fee ñoo fii ça c'est faux dara du ci dëgg dara la ci xamul dem na sax ba naan waa ji woon nañ ko nekk fi woon ak nangam nangam dara la ci xamul waa jooju ba léegi ba léegi ba bi affaire bi am mu ngi doon liggéey fii dans une banque de la place donc loolu mu wax noonu dara leeru ko ci dama ci profité rek pour wax ne euh, vraiment nañuy def attention ci génn audio yu nga xam ne nii pour faire le buzz rek quoi di wax lu nga xam ne dara leeru la surtout surtout lu nga xam ne nii c'est aussi sérieux c'est aussi sérieux que le coronavirus donc ñun yooyu ñu nekk noonu vraiment tal nañ leen lu may di def ay audio di wax loo xamul ci profito pour vraiment ne ñoom ñëpp ñi koy def nañu def attention dootuñ toléré ci ku nga xam ne ni dana am cas yu mel nii nga génn sa audio di ci wax lu nga xam ne du dëgg ku ko ci defati danañ pour danañ remonter audio yi ba xam l'auteur il sera poursuivi parce que audio bii boo ko sello ba sello waa dafa bëgg a nelawloo ñi on dirait waxuñ kenn mu créé psychose mais waxuñ kenn aussi muy ñee muy ñee weddi lu nga xam amna mo na li mu def moy féké dafa bëgg a audio rek mu defar audio ne ah affaire bi kat mi ngi fi nañ def ndank attention nangam nangam nangam mais lu nga xam amna ba paré ay médecin yu nga xam dañu wat constater ko comité régional jël ay matuwaayam nga def say audio ni amut loolu c'est pas bon lolu ça c'est pas bon amna na kaw la lañ ko imputé parce que waa fi la ne fi lañ ko enregistrer donc ay dafay ñu ñëw nag dugguñ fii génn fii yooyu yëpp xamul moom nan la ñuy liggéey xamu ko gannaaw xamu ko nag vraiment na noppi na noppi donc daal bi mu amee waa ji jël nañ ko en charge yóbbu nañ ko hôpital dala jàmm ñi nga xam ne nekkoon na en contact avec ñoom recensé nañ leen ñoom ñëpp actuellement yóbbu nañ leen ci benn hôtel fii ci Kaolack ñu ngi leen di saytu Clédor Alioune Badara Mbengue yemu ca jaaree na fa àddu ci mbiru taalibe yi ak daara yu bari yu ci Kaolack ville ak Kaolack département gornor ne donte comité bi jox na leen ndimbal waaye terewul képp ku ci mën a jàpp nga jàpp ci bu waañu daara mënee am sax na mu amee ci yenn dëkk yi dina ci baax lool gornor Alioune Badara Mbengue ba léegi ak Cheikh Tidiane Diagne. mbiru taalibe moom. wax dëgg yàlla comité régional bi lim ci mënoon lim ciy def ci liggéey jéego yu ñëpp mën a seede la ñoom la comité régional bi lettre coranique li ñu leen jox ci ndimbal dans un premier jet ëpp na ñetti téeméeri daara par la suite am na ñeneen ñu ñëw yokku ci mais nag Kaolack dafa bëri daara macha allah dafa bëri daara dafa bëri daara Kaolack ville rek laa wax de sans compter nag maintenant département Nioro département Guinguinéo moo tax daal vraiment ñi ngi ñaan képp ku nga xam ne nii mën na ci jàpp mu jàpp ci parce que li nga xam ne am na feneen te ñu gis ko ay bonne pratique la ñun fu ñu gis bonne pratique dañ koy jéem a adapté jéem ko adapté ci suñu région am na feneen fu nga xam ne ay waañu daara ma nga fa yenn kilifa yi jàpp ci ba nga xam ne ne maître coranique yi fexe nañ ba taalibe yi resté fi ñu resté ñu saytu seen i lekk donc loolu aussi su fekkee ne am na ñu ci mën a jàpp ba mu mën a am aussi nous on est preneur beneen bi mooy aussi ministère de la famille initié na opération bu am solo mooy ñu fexe ba taalibe yi ñi ci mën a delloo seen i dëkk ànd ak seen i sëriñ ñu def ko ñi nga xam ne aussi am na fu ñu leen mën a dugal ñu dugal leen fa opération yooyu préfet yi ñu ngi ci ba am na un certain nombre de candidats au retour et que commencé nañ ko di ko def pour fexe ba ñoom ñu delluwaat fi ñu jógee woon ñu accompagner maître coranique bi dugal ko ci oto taalibe yi aussi ci oto respecter distanciation yi appuyer leen bu ñu delluwaat fi ñu jógee mais préoccupé nañu parce que ñoom itam sont exposés waaw moo tax première action yu njëkk def mu jublu woon ci maître coranique yi ak taalibe yi. gouverneur Aline Badara Mbengue sa na ba waa chambre des métiers bu a dëgëral seen bi jaaree ko ci dajale yenn ci ay tailleur ngir ñu defaral leen ay masque ànd woo nguur gi ne ko lépp lu ngeen di defati jëmale ko ci xeexu corona bi na ngeen fexe ba boole ci artisan yu Kaolack Noa Biaye ginnaaw feebar yi ñuy wax coronavirus mu daal di wàcc ci àdduna ñeneen pays yi taxaw naa ngir seen askan yi sol li ñuy wax masque ngir ñu aar seen bopp feebar yi mel ni fi ci Kaolack sol masque ñëpp ñu ngi koy wax tax na chambre de métiers bu kaw Kaolack desul si ginnaaw ci wàllu xeex ci feebar yi mel ni mbay Diagne secrétaire élu la fi ci chambre de métiers bu Kaolack. ci wàllu masque yi yëgaguñu ndax mairie commandé na masque yi ñu war a joxe fii wala ndiir waaye ñun si chambre nañu si répertoire tailleur yi nga xam ne affilié nañu si de métier xam ne yi capable nañ pour defar masque yoo xam ne dafay dëppoo norme bi ñu soxla chambre de métier bu Kaolack muy ñaan état ngir mu am quota ci wàllu defar masque lépp lu ñu si mën a soxla te état bi di ko commandé ñu bëggoon bu fekkee lu ñuy defar lu la ñu fexe ba mu wàcc région yi ba région Kaolack artisan yi jot seen wàll su fekkee tamit ñoom ñoo ko commandé au niveau mun a jàpp mooy ni woote yoo xam ne chambre des métiers def na ko yaakaar na seen woote yi mel ni tàbbewul ci nëpp bu tëx. jaajëf Noa bi yaay Medina Sabax desul gannaaw ci couvre-feu yeeg état d'urgence yi mu doonoon lu lënd moom lool ci bopp askan wi métti woon lool itam ci ñoom laataa ñoo gëm ne feebar bi am na tax rek lépp taxaw du mbay ma ñu xamoon du njënd mi waaye itam du njaay mi Cheikh Ababacar Dieng. askan état d'urgence ak couvre-feu jafe woon na lool ci ñoom ñu comprendre luy loolu Ousmane Gueye mooy meeru Medina Sabax. oui mais métti na mais il la ñu def ko ñu ngi ci état d'urgence ñu ngi ci couvre-feu bu njëkk méttoon na parce que des fois nit ñi xamuñ lan mooy état d'urgence nga buñ toogee ne la bul déplacer di ñëw à partir de guddi xamuñ ko mais ñu ngi adapté population yi comprendre leen léegi ne pour ñoom la. dëkk yi nga xam ne dañoo duggalante ak réewum Gambie daanaka sax seeni mbokk yi benn lañu leneen ci ñoom it moo jàngoroy coronavirus amna te mu ngi ci biir senegal waaye fim ne moom yokku ci weeru koor yi daanaka ci confinement total lañu ñu nekk nit ñi génn tuñ activité yi amatul Ousmane Gueye mooy seen maire. d'autant plus que ba dee yi commencé am loolu nag moo gën a yombal mbir mi ñëpp ngi toog seen kër ku couvre fa bi ñëpp respecté nañ ko naa day indi coono coono mooy bu fekkee ne da nga daan jaay ñëw la nga teel a arrêté déjà kenn ñëwul sax ñu arrêté marché yi arrêté luuma yi arrêté buti yi cinq heures activités yi dootul dox déplacement yi ñu kilifa coono boobu moo tax nit ñi mënatuñuy dem askan wi nga xam ne bay rek mooy seen yitte beneen bi moo di yaxantu ci marché yi maanaam jaay fukki fan ak ñett ci weeru mars ba jamono ji ñu ëpp ci ñoom defuñu dara moo tax it élus jàpp ne faaw ñu dimbale askan wi dëkkee ci bile arrondissement Ousmane Gueye coono la tax président ba mu comprendre ñu ngi préparé def ceeb bi jàppale leen jàppale leen wax mais mënuñu yore dund añ ak leen jàppale maire bi jàppale bonne volonté yi jàppale leen buñ ko booloo je war nañu mën a toog respecté ko ko ñaan yàlla feebar bi teel a arrêté. fàttali nag bile arrondissement nga xam ne ñetti commune la ëmb li ñu leen jagalee ci dund gi nguur gi séddale ci Médina Sabax la ñu ko wàccee. sëg sa micro Cheikh Ababacar Dieng ci arrondissement ba ak maire ba ci boppam ndax dëkk ya ci arrondissement ba jege nañu lool frontière wu Gambie loolu nag bokk ci ah, jafe-jafe ah, ak lifa yi di jànkonteel waaye askan wi nag tiit nañu lool ci bu ñu déggee ne jàngoro ji am na ca Daaru Salaam ak dee nga xam ne ko ciy yombal seen ak liggéey ñoom kilifa yi ndax tàmbali nañoo jël seen ak matukaay jaaxee ko jaarale ko ci masque yi Ousmane Gueye mooy maire Médina Sabax ak Cheikh Ababacar Dieng Oui, mais loolu mooy suñu problème ah. parce que boo ko calculé frontière dafa yaatu te boo calculé poste carré bi la douane bi nekk police frontalière mais man na ñeent fukki kilomètre longueur man ngay jaar fa nekk donc elle est poreuse fii ba ngànd frontière donc nit ñi xam nañ ko que man ngay jógee Casamance dugg ci frontière bi jàll dem ngànd dem Kaffrine dem Touba que man ngay jógee booru Touba jël Jakarta dugg li ñu gis donc man ngay déplacer te doo jaar ci tali loolu mooy danger te mënuñuy teg ay policiers ak ay gendarmes ak si yëpp donc loolu aussi moo tax coono am ci gendarmerie ñu déplacer téméri dëkk ak ñeent moo am ci arrondissement bi benn poste gendarmerie moo fi am moo war a régler dëkk yooyu yëpp c'est pas possible ak seen liggéey quotidien donc day mit moo tax de temps en temps ñuy am ay appui ay renfort gendarmerie pour jàppale liñ ci liggéey bi waaye bi ngeen déggee ne jàngoro ji feeñ na ci département bi mu ci commune Darou Salaam nga xam ne wala ak Medina Sabax euh, dafa def ci yéen ragal ñu tiit comme dañ na feebar xam nga Sénégal nag moom mën naa bañ a respecter mbir boo ko waxee xam nga Sénégal problème mooy gisuma wax ji bari na luma ma gisul xaama ko waaye bañ na febar am na la la ne boo ñe jël masque ñop jënd masque bañ xamé ne nit ñaa ngi dee leen ne ba eh, faagoo ñu jot na problème moy lool donc ñop xam nañ léegi que maladie bi am na ñop xam nañ ne feebar bi également am na moo tax léegi nag liggéey gendarmerie dafa xawa wañé ki yomb parce que ñop ngi ar seen bop lu nga xamné dafa jafa continuer lool man lañ ci sant yalla ka bobé sax am ca département bu ñoro ba tiital leen ñom wa Medina sa wax ci la addu mu feeñee foofa ca département ba léegi nag waa ji nag baana baana la woon jëflante woon nag lim gu takku takku ci askan wa ñoom nag ñu ëpp ci ñoom ñoo ngi fii ci Kaolack ñu beex tax ba préfet ba gën a yokk matukaay yi mu jëloon tëj fu bëree bari ca département ba moom Abdoul Aziz Diagne ak Cheikh Ababacar Diagne. yalla def na kenn mo feebar fi ci département feebar bo xamne ne leer na leen ne covid 19 moko japp comme mom yalla dafa def ne dafa don yeungu ci mbirum jaay jëndaax jaay ay legum jotoon na bu mu egsee le 22 le 23 jotoon dem ci marché daru salam ak ñetti dëkk yo xamne jot na fa jaay ay legum lool moo tax cas contact yi ñi nga xamne ñoo ñoom la jëflanteel mu nuyo leen wala ñu bokk di naan ataay wala bokk di lek wala ñu saafante loolu mat na juroom ñaar fukk ak ñaar 72 personnes yo xamne depuis barke demb yóbbu nañ leen kaw pour que ñu mën leen denc isolé leen xol ndax am nañ feebar bi wala amuñu ko lo bu jëk bi ñaar fukk loon ak juróom benn loolu lañ njëkkoon nemmeeku mais ñun njëkk yóbbu 44 la mu nekk ñeent fukk ak ñeent démb ñu toftal si si suba si fukk ak ñeent si guddi gi ñu yóbbaat également fukk ak ñeent mu nekk un total de 72 personnes yoo xam ne ku nekk dañ lay toog isolé la ak kaw la bàyyi la pendant 14 jours di nemmeeku sa wér gu yaram bu ñu defee prélèvement ba euh, balaa jiyee ji sax dañu jëloon ay arrêté pour dakkal dem ak dëkk commune don nit ñi dañ don teggi fi nga xamne ne gendarmerie foofu lañ leen taxaw di leen xaar di dugg si alle bi ñi jëge ba Touba jaaré ko yenn gox ak goxati pour dem Poroxaan tay rek amna ko xamne commandant brigade japp nako té loolu dañu gis ne nek lo xamne da yombal xex bi bu kilifa yi surtout ñi nga xamne ne ngank mbir wër gu yaram bu leen ne nit ñi tok ne ñuy parce que loolu motax fièvre bi mëna dal mais fekk na ñi defuñu ko képp kuñ japp nañ taxi yoon té loolu avant fièvre bi don ñëw won bu fièvre bi dikké ci biir département bi ñu am ben ka liñ jëk def moy gëna téré dem ak dikk bobu ñaaral bi moy ñu tëj melna ci kenn daal ne dëkk kenn dootul dox wala jël saret wala jël moto jël auto jël dëkk boobu dem beneen dëkk même bu dee si même commune bi la ñu toj également commune Daaru Salaam amul kenn ku nga xam ne da ngay dëkk commune Daaru Salaam di fa jóge di dem commune Nioro wala dem beneen commune te loolu dañ ko jël par arrêté dañ ko gendarmerie pour que mu appliquer ko systématiquement sauf cas de force majeure parce que am na ay par exemple des grossistes yoo xam ne ils habitent dans la commune de Daaru Salaam bu ñu leen teree ñëw ceeb dina manqué fii si biir département bi waxuma sax commune Nioro mais ceeb day manqué si biir département bi donc kooku ce matin j'ai appelé le commandant de la brigade pour que ñu autoriser kooku pour que mu mën a ñëw ñu approvisionner les commerçants qui sont dans le département de Nioro direct donc am na ay exception yoo xam ne parce que également préfet Abdul Aziz Diagne ca lañu jëm xol way yi ak dogal yi nga kilifa yi jël nañ ko ngir donte région bu ak département yépp amaguñu benn cas ci mbass mi di coronavirus muy situation pandémie Covid 19 ak Mohamed Wilane. situation pandémie Covid 19 ci région bu Kaffrine li ko jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru avril jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar naam région bu Kaffrine amagul benn cas waaye lu jëm ci ay alerte toll na ci fukki alerte ak juróom-ñaar yoo xam ne mu ngi am ci ñeenti département yi ëmb région bu Kaffrine juróom-ñeenti alerte yi ci département bu mbir Mbirkilaan la juróomi département bu Koungheul ñaari département bu Kaffrine benn ci département bu Malem waaye am nañu jamono ji cas suspect rax ca dolli lu toll ci fukki nit ak juróom-benn ñu ngi leen mettre en quarantaine ci région bu Kaffrine kenn ki nga xam ne nag mettre nañ ko en quarantaine jamono ji ay résultats génnaguñ ndax ñu xam dafa yor doomu jàngoro bi am déet waaye lépp loo xam ne dina tax jàngoro bi du fu dugg kilifa yi ñu ngi koy def ba lii di marché central bu Kaffrine képp kuy jaay léjum jamono ji dañu laa génn ci biir marché bi yóbbu leen ci beneen place police di def liggéeyam ci marché bi képp koo xam ne dina fi dugg takk masque lakk wala ñu jàpp la kon ñu mën a jàpp ci région bu Kaffrine ci fukki alerte ak juróom-ñaar yi fukki nit ak juróom-benn jamono ji ñu ngi leen mettre en quarantaine ñu am ci seen biir benn cas suspect ci région bu Kaffrine Kaffrine Mohamed Wilane Alfayda FM. sant la gërëm la Mohamed Wilane dañuy dem xooli situation ba ca dëkk bu sell ba di Touba Mbacké ak lay xew ca centre de santé bu Darou Marnane te malade yi di ko def mu yenn ci seen ay doxalin Mamadou Moustapha Mbaye ay ñeel ñi nga xam ne ñoom ñoo feebar te nu wax ne du ñu am coronavirus gannaaw ba nga xam ne kenn ci ñoom nekk ca Daaru Marnaan waxoon na ne amul dara lu nga xam ne mu ngi koy yëg ci yaramam te ñii ko yóbbu foofe daal ñoom ñoo koy tuumaal waaye dara jotu ko am na keneen ku nga xam ne moom li mu def weesuwul jël ay toborteem daw làqatu ji muy ab tailleur bu nga xam ne dafa demoon ca centre sante santé boobee nga xam ne moo nekk ca Touba nu xool wér-gi-yaramam daal di defal test defal ko prélèvement wax ko kon ni ko bu fekkee am nu gis ne kon dafa am coronavirus bi nu ko woowee wax ko mu ñëw ci centre de santé bi li mu def weesuwul fay téléphone am daw police gendarmerie ak service d'hygiène di ko wër di ko jéem a localiser mujjul sotti ba ci guddi gi ci talaata ji kon lanu mujjee xam mi ngi ci marché ocas teewul ba nu demee foofee ba léegi teguñ ko gët waaye nag enquête bi moom mi ngi ubbeeku ba léegi ñuy xool fan la wanante mujjee ki gëtam loolee mel ni kon jur na ci waa marché ocas tiitaange ndaxte waa ci boppam dafa yendoo liggéey Touba Alfayda FM. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda point ñu wéyandi ci xabaar yi ñëw ak yéen ci lu pàcc bi junjoon nañ leen ko coow li juddu ci diggante Akilee ak Senelec gannaaw ab contrat ba doxoon seen ak diggante jëm ci ab liggéey ba ñu ko dénkoon moom Akilee ngir ñoŋal courant bi ak Senelec ci boppam ba ñu koy xaatim nag Pape Mademba bi tey doonagul woon directeur général bu Senelec loole nag waa CREM di mouvement ba mu jiite ñoo ko xamle porte parole ba di Insa Diouf mu ngi ci micro Cheikh Tidiane Diagne. jumtukaay xarañ na ba nga xam ne lépp loo bëgg a xam di ko xam ba tax na ci sunuy gëstu ñu am ci lu bari loo xam ne xam nañ ko ci wàll bi nga xam ne moom moo tey lié contrat bi nga xam ne moo nekk direct entre Senelec ak Akilee contrat bi ci li ñu mën a wax jiital mooy Senelec moo signé benn contrat jagleel ko benn entreprise bu ñuy tuddee Akilee bi ñu koy signé nag ñu ngi ko signé ci période campagne électorale bi kon lu muy wund mooy bi ñu koy signé boobu pamma demb bi tey nekkagul directeur général de la Senelec ci biir contrat bi mu feeñ ne Akilee dañ ko jox benn exclusivité maanaam moom kese pour mu fournir li nga xam ne moom mooy Senelec ñaar téeméeri mili euh, ñaari millions ak juróom-ñaar téeméeri compteur yoo xam ne ñu ngi koy tuddee compteur intelligent mooy compteur yi nga xam ne moom la ñuy def ci woyofal bi soo seetloo coût bi ñu ko ko joxee toll ci téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci ay milliards yu suñ xaalis maanaam 187 milliards mu war ko joxe ci durée boo xam ne durée fukki at la jamono boobu contrat bi ñu signé leen ko même cadre yi nga xam ne ñu ngi woon ci boîte bi ak syndicat yi nga xam ne li tax ñu jóg mooy pour défendre les intérêts de leur entreprise alerté woon nañ pour wax ne contrat bi ñoom de d'accord woon ci parce que non seulement montant bi bëri na bi ànduñ ci ak clause yi nga xam ne moom moo nekk ci biir contrat bi aussi tey na seen xel. Mm-hmm. ah administration di continuer. Pape Demba bi ñu nommé ko directeur. biñ ko nommé directeur. première mission bi mu amone moy que ne bëgg-bëgg président de la république son excellence Macky Sall de sorte que fii ak deux mille vingt cinq ñëpp jot ci courant bi loolu mo nekkoon préoccupation mo nekkoon feuille de route bi mu egsee mu jakarlo gis né mom kat ci wal bopam contrat bi ni amna lo loo ñaaw na ci comme ni ci ñaaw ci xelu Sénégalais yépp nga xam ñu ngi gëstu mbir mi. Mm-hmm. ci loolu nak la commencé jogné il faut que ñu càmbaraat li nga xam mom mo nekk ci contrat bi waxuñ ne dañ koy éliminer mais li ñu wax mooy que ne nañ fexe pour xoolaat euh, contrat bi pour seet li nga xam ne moom moo nekk ci biir contrat bi. ñu jàpp ne nag euh, Akilee ci boppam ab délit la def ndax chiffre d'affaires am ci boppam ak milliards ya ñu ko dénk tax na ba dossier bi gën a tey xel lool Insa Diouf mi ngi ñuy gën a leeralal doxalinam moom Akilee gannaaw ba mu ñu xamalee ko juddoom mi ngi ànd ak Cheikh Tidiane Diagne ba léegi. kon Akilee ñëpp gis nañ li mu moy que ne diw moo saytu ci ben cabinet problème mu Sénélec ci demande Sénélec pour ñu auditer ses forces ses faiblesses et ses pertes bimu ko defee ba pare mu xam la nek ci biir mu ñew genn fofu créer ji bosam pour suñ waxé né dañu am marché bi wala problème bi situation pour mom mu ñew woné bopam pour mëna a gagner marché bi. Mhm. pour mun pour mën ko def lolu liñ ci njëkk gis moy que ne soo demee ci ñi seen xam-xam wàcc lolu la ñuy tuddee un délit d'initié biñ jógee fofu ñu xolaat ci terme yi ba pare ne Akilee ci bopam chiffre d'affaires d'affaires am weesuwul un milliard mais ku sa chiffre d'affaires weesuwul un milliard nan lañ la mën a joxe un marché boo xam ne day toll ci cent quatre-vingt-sept milliards ñu teg ci gisaat ni. acculé boobu noonu te li may wax nii c'est vérifié. Senelec ci boppam moo ko xam nga tay par exemple soudé yow da nga wara a liggéey wara a joxe xaalis jëndi yow amon man entreprise bi lay garantie ba ngay jëndi kon kay na jëndi li sam bop ñu gis né Senelec moko garantie. jamono joju à hauteur de 85 pour mu pour def ses levées de fonds dans les banques kon donc je crois que lolu lu leer la ñu joggé fa ñu né contrat soo koy def so demee bay prétendre à un marché dafa am ay frais yo xamné ne da nga ko fay au niveau des impôts et domaines ci lolu gis nañ aussi ne Senelec moo ko fayal encore frais yooyu noonu loolu yëpp ki nga xam ne yow yaa ngi koy jox marché kooku yëpp yaa ko fayal frais yooyu noonu donc mu nekk loo xam ne aussi teeyaat na xel ci ci dossier bi yemul foofu ba léegi soo jógee ci loolu dañoo gis encore ne ba léegi Senelec moom ci wàllu boppam ginnaaw bañ waxee akili wax chiffre bi wax frais yi donc nag Pape Demba Bitèye taxaw aussi ñu xoolaat ne marché bi jàngat nañ ne marché bi amul appel d'offre amul appel concurrence mhm. waaw mais compte tenu de tous ces problèmes là ñu ñëw liñ jàpp mooy que ne akili et ses alliés soo seetloo seetloo ci contrat bi ñoom kese ñoo ciy bénéficié mhm. mais état du Sénégal du ci bénéficié wu. clientèlu Sénélec du ci bénéficié wu Sénélec du ci bénéficié mhm. parce que dama lay jox nga utalil ma compteur même maintenance yi sax ak li moo ko war a jël en moo ko war a gere te loolu Sénélec war na ko mën a defal boppam et même bi su indee compteur yi. ay agence Senelec lay utiliser pour ñu dem defal ko liggéey bi mais loolu nag lëndëm xel ñu ne nag contrat boobu ndax jar na càmbar wala jarul càmbar mhm. contrat boobu nag la pas président bi tey parce que di président bi tey sa dafay xaw a am nu muy niru mais la direction générale de la Senelec mhm. te lii ñoo ne dañ koy càmbar ci càmbar boobu ci di la direction générale à direction générale amul dara lu muy entériné te conseil d' administration bi joxewu fa avalam kon donc muy conseil d' administration bi muy syndicat yi ñoom ñëpp gis nañ ne lii jaarul ñu ne nañ ko revoir xaaraat loolu de moo indi coow li ci ci ci gàtt gàttal diggante Senelec ak Akilee mais coow loolu yëpp dañoo xamul aussi ki ñu ko seqal kan la. Insa Diouf dañu koy bàyyi moom Senelec ak Akilee dem euh, wax ci mbiru njënd meek njaay mi nuñ koy defee at mu jot saabu weeru koor bi ak tero ñoom ñoo ñu dénk wàllu njënd meek njaay mi dem nañu euh, toll euh, nemmeeku tolluwaayu dundi gi nit ki nit ñi di tewoo ci weeru koor gi la xam ne nag mooy la ñu gis doy na leen dara du ba weeru koor gi jeex tàkk bu weesoo moom Nouro Abaro Baro, mooy chef de service du commerce bu Kaolack mi micro Noa Biaye comme ni ko faral def at bu nek ci wàccaayu koor gi dañuy euh, dem ci marché yi magasin commerçant grossiste yi di jokkoo ñom di saytu lepp li nga xamni askan bi da koy yittoo lool ci weeru koor gi lepp li xamni dafa jëm ci li ñuy lekk ak li ñu naan waaw lu ñu mën wax nak moy macha allah li ñu gis ci marché yi moy que fi ba weeru koor gu sax di romb de manière générale lepp li ñuy soxla ci li ñuy lekk ak li ñu naan am ci marché bi lool mom mën nañ ko garantir ben produit kese daal lañ gis que di amna touti tuuti jafe ci début bi nii mooy

jalee rek ba mu génn dina mën a dugg ci gox goxaan yëpp ci biir Sénégal incha allah rabbi xam na quand même tuuti jafe-jafe yu ñu nemmeeku woon ci dem ak dikk lépp li nga xam ne ay légumes la lu si gën a bëri mi ngi di bàyyeekoo région de Thiès ci diggante zone des Niayes ak Mboro donc foofu lay jógee ñëw ba Kaolack jógee ñëw ba encore di dem ci yeneen communes yi ak départements yi daan am ay jafe-jafe jafe nag li ko waral rek mooy mesure de restriction yu amoon sur le transport nga xam ci qualité produit bi quoi donc nag dañuy ñaan rek vraiment bi mbastal yalla def ci utura ñu fagagal ko pour que quand même euh, dem ak dik produit yi mën di yeb dal Seydou Nourou Baro noonu le ko service di commerce bu Ziguinchor euh, defee ñoom ñoo ñu fa denk walu ñënd meek ñay mi dalal nañu xélu askan wi wax leen né dara du manqué ci koor gi waaye itam lu jëm ci njëgu ceeb bi dawlin bi ak suukar dara du ci soppeku bu ñu sukkandikoo ci chef de service ba di Ousmane Ka ak Mohamed Sagna ci contexte bi nga xamante ne am na benn mbas bu feeñ population bi am nañ njàqare tuuti par rapport ak disponibilité luñ naan denrée de grande consommation mu jëm ci wàllu ceeb mu jëm ci wàllu diwlin mu jëm ci wàllu sucre mu jëm ci wàllu yeneen ak yeneen ak yeneen mais ñoo ngi jéem rassurer population parce que pratiquement comme ni nga ko xamee chaque semaine danañ def 1 à deux relevés pour jéem a am une idée sur la situation du marché disponibilité non seulement produits yi nga xamante ne dañ ko considérer comme denrée de grande consommation, mais également prix par rapport aux denrées de grande consommation Ça, c'est le relevé buñ nous def les données. pour analyser toutes les données te buñ seetloo ci données vraiment gis nañ marché vraiment en ce qui concerne l'approvisionnement. L'approvisionnement, c'est correct mais prix également ce sont des prix qui sont stables soo jëlee par exemple du bi rien que bidon 20 litres ça, seetloo ci grossiste yi nag pratiquement 3260 3 bidons de 20 litres alors que faut en moins, nous donnons à am 2000 bidons par relevé de stock c'est l'eau aussi riz ordinaire Nous avons pratiquement 1254 de riz te lolu ça n'a rien à voir avec stock bi nga xamante concerné. riz parfumé ça n'a rien à voir également stock bi nga xamante concerné concerne le riz local prix yi par exemple au détail pour riz ordinaire bi ça varie de 14 900 à 16 000 francs maximum sur toute l'étendue de la région de Ziguinchor So jëlé nak benen produit bi nga xamante consommateur consommateurs yi dañ koy soxlo bu baaxa baax Rawaté nak ci wéru koor muy am nañ fa pratiquement 150 tonnes te Distribuer bi aussi soo seetloo détail bi cher et ba cher moo ngi pratiquement c'est 600 francs le kilogramme une fois de plus dalal xelu population bi rassurer leen nee vraiment fu mu nekk ci information une autre am pour l'instant maintenant nañu retenir ceci que marché bi c'est un marché qui est correctement approvisionné. xabaar bitim xabaaru bitim réew ci roppalaanam la ñuy dugg moom Cheikh Tidiane Sarr fan lañ koy dooree. xibaaru bitim réew yi dañ koy dooree ca réew mi di bene ak procès journaliste bi ñuy wax Ignace Soussou moom nag dàq nañ ko ba juróomi fan ci weeru mai bii di ñëw journaliste boobu nag euh, ñu condamné woon ko daal euh, ci weeru décembre bi ñu génn ci lu tollook fukki weer ak juróom-ñett ci prison boo xam ne daal mu ngi jëm ci lépp loo xam ne ñu ngi koy wax lii di cyber criminalité waaye tamit arcelement jëm ci euh, ab plainte boo xam ne daal procureur de Republik ba sàkk proses na ko ci moom procès boobu nag ñu waroon ko amal niki ki talaata gi nag eh, nañ ko dàq ba juróomi fan ci weeru mai bii di ñëw. bitim réew ca Maroc la jubali wax ci li nga xam ne daal moo di góor jigéen ya jamono ji daal euh, ñu ngi leen di teglu métti foofu foofulee gannaaw ci bi nga xam ne daal wane nañ ay photo yoo xam ne daal ci internet ba jëm ci ay góor jigéen daal yoo xam ne jamono ji ñu ngi commencé fës lool ca réew mii di Maroc euh, rawatina jaarale ko ci ay application bi ñuy wax euh, chat gay foto yooyu nag mujj fës lool ca réew ma gannaaw bi nga xam ne benn soxna boo xam ne daal dafa fës lool ca média ya fësal pompe yoo xam ne daal amaloon na ko ngóor jigéen nag ñu koy xeex foofule bu baax a baax ca réew mii di Maroc soxna Ndeye Khady bu ñu sukkandikoo sax ci ay xibaar nee nañ daal ab étudiant bu góor boo xam ne daal mu ngi jógee woon foofule ca France moom sax dafa mujj xaru lépp ngir euh, tuumaal gi ñu leen doon tuumaal ne daal ñoom ay góor jigéen lañ ca réew mii di Maroc ñetti kuréel yoo xam ne daal ñu ngi xeex euh, foofule àq ak yelleef doomu aadama waaye tamit di xeex bu baax a baax góor jigéen ca réew ma ñoom ñu ngi xam le ne daal yenn ci ay góor yoo xam ne ñu ngi def lu mel commencé nañ leen sonal sonal lool ca dëkk ba ba ñu nekk sax jamono ji ci ab euh, danger bu mag a mag. xabaar yi. bitim réew ca France la ñuy jubali soxna Ndey Xadi wax ci li nga xam ne daal moo di déconfinement bi nga xam ne daal boo moytuwul dinañ ko fa door bu yàggatul dara maanaam ci lu jëm ci daal fexe ba nit ñi mën a dellu si seen ité yi ñu waroon amal sax ab euh, dispositif bu nu mel ci talaata gi jaarale ko ci premier ministre ba mu waroon a présenter député ya nan lañ ci war a ci mbir mu nu mel fexe ba nit ñi génnaat seen kër yi dellu si seen ité yi ci boobu waxtu nag euh, soxna Ndey Xadi jàppal ne daal ab enquête mu ngi wane ne daal euh, mbir mu mel mu ngi commencé indi ay jafe-jafe maanaam confinement bi foofu la ca réew mii di France ñi nga xam ne ñoo di néew di doole yi commencé sonn lool commencé tamit euh, di dund lu métti métti jaarale ko ci ñàkkum xëy ak euh, lépp loo xam ne dakk-dakkal la jaarale ko ci koom-koom bi mu nekk lu métti métti jamono ji France di ko dund donte sax ñoom ñu ngi bëgg a génn ci confinement bi ñu nekk. xabaar yi. bitim réew ñu jeexalee xibaaru bitim réew yi ak euh, réew mi di Suède Suède nag jàppal ne daal yenn ci école ya ñoom ña ngay wéyal seen i njàng soxna Ndey Xadi sa réew mi nag di Suède jàppal ne daal jamono ji lu toll ak ñaari yi nit ak ñetti téeméer daal commencé nañu fa ñàkk seen bakkan ak euh, feebar bi ñu wax euh, coronavirus wante nag loolu terewul benn yoon kilifa ya jël ay dogal ne daal danañu bàyyiwaat li nga xam ne moo di école yu diggu dóomu yi muy crèche yi ak yenn ci ay collège yoo xam ne jamono ji soxna Ndey Xadi wéyal seeni i njàng xibaaru bitim réew yi soxna Ndeye Khady jeex na ñu leen di jaajëfal ci teewlu bi. xabaaru tàggat yaram. xabaaru tàggat yaram Serigne Moussa maa ngi lay nuyu.

Dieng moom nag dëggal na fu mu toll moom moo li nga xam te ni moom mooy club bii di Sochaux bu Omar Daf daal fay ut nag Ledus bi nga xamante ni moo fa nekkoon na ci atum 2015 ba léegi kii di Franck Yao nag bi ñu na fukki fan ci weeru décembre atum 2019 day des di nekk président club bi ni mel ñu dem ci Côte d'Ivoire moom nag candidat la ci njiitu fédération ivoirienne bu football Didier Drogba nag am na ay ambition yu rëy a rëy bu ñu sukkandikoo daal ci kàddu yu tukkee ci réunion bi mu amaloon ak président club yi nekk foofu ca biir Côte d'Ivoire Didier Drogba nag def na benn promesse wax na ni daal saa yu nekkee njiitu fédération ivoirienne bu football dina indi ca Côte d'Ivoire li nga xamante ni li nga xamante ni moom mooy championnat bi bu ñu demee ci digg mai wala ci njeexitalu weeru mai bu dee nekk ci wii kuréel la fas yéene doon dafa descendi ci feu vert bi ngir mu wax ni championnat bi mën naa door waa wala déet foofu ca Allemagne kii di chancelier bi nag di Angela Merkel nag moom sax dafa war a daje ak président landes yi alxames ji foofa ca Berlin UEFA nag daal dinay artu juróom fukki membre ak juróom association yi nga xam ne ñoo bokk ci moom ne fekkee ni championnat dafa war a jeex ci saison bi ndax mas mi di coronavirus dañ ko ko war a teel a yëgal balaa ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai atum 2020 ñu dellu soit fii ci sunum réew ngir jeexal xibaaru tàggat yaram yi ginnaaw ba ñu nekkee finaliste ñàkk ko ca atum 2017 foofu ca Zambie ci kaan fukki at ñi di Koto Boys yi nag jotoon nañoo am première partie ci seen prime yi nga xamante ni fédération bi diggoon na leen ko fu mu toll nii nag des seen ñaareelu xaaju koppar yi nga xam te war nañ cee jot waaye bu ñu sukkandikoo ci kàddu di maître Augustin Senghor nee jamono ji daal priorité li feneen la nekk mangoo ko day xat yi ba ñu la ñaanee lekk daa yu jàmm lii moo gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi jaayeen jëf yéen a ngi xibaar yi ci Alfayda FM 90 ñu ñëw ak yenn ci euh, kooru gay moolum géej ci juróomeelu fan bi baax a jopp Kooru Gaye Modou Géej o oh, Xaaj Ibrahim Gaye ñoo ngi ci juróomeelu fan ci koor gi waaye DG wooragul benn démb amoon na yéene naam ne imaamul akbar mooy ki ko yeb waaye DG ganaar gi ñu ko yebee mooy yàq kooram bakkanam munta muñ ganaar guñ njoñ o oh, DG waaye li mu def lépp rëcc na ko tàmbaliwaat naa bëgg naa woor woor gu mucc ayib o oh, Xaaj Ibrahim Gaye dembo ci bir kërëm la la comme nañu ko diglé jité wa kër gi yépp nopi ci té kurusam haj ibrahim di koj koj rek ay astaghfirullah yulimu 2h du matin la sunu DG international bi dal di xëdd ne bëggatut a karmat bam noppé ci la dal di dallu waxtu liggéeyam jot o oh, haj ibrahim gay mo nga ci roja ba tay jilé julité feeñ mom moom seen ko séen gis weexaayu bëñam moo ngi balu ak ay katam yépp di kafak ñoom di jaabante rek biroog bureau studio production ba ci rédaction fu mu dugg rek tooñ ay liggéeykatam ba gaañi dajjeeku mu romb leen di wéy o oh, xaaj Ibrahim daa neex deret tey jile bu journal bi di jàll day concentré wu lu mat ne buggul nemmeeku benn njuumte looloo tax yëgul coono gi moo ne de dëkk baa ngi tàng jër o oh, DG journal bi daa noppi rek DG na alhamdulilah génn rajo bi wàcc ci suuf di jël lu air o Haj Ibrahim doto ko defeti tangoru nangan wi ko fad tax naka mu arrière xaw tuut mu mbeuk mir bi la di énervé simi taxaw ci buntu bi xaw ko seetlu <laughs> ah directeur gaaw nga du gaddi <laughs> biti bi moom neexalul kenn déjà wa si man ngay tapas dal si <laughs> yaa ngi di no c'est-à-dire damay kaf rek comme ni ngay kaf ak man motax malay kafé quoi mais man maa soxla nga kaf ak man eh xamna xamna bu ñaar ngay xool xool si am sa tenue jëlal ne ma mot topp sama baaraam ba ma soxla la o DG yaramam tàmbale na di tàng naka muy dugg rek tombek Assane Cissé di wàcc yow leen la waaw na nga toog xanaa liggéeyoo Assane <laughs> lecteur dama fi toogoon rek di laa war a wàcc léegi may wax nga di ma tontu waa yéegaata ci kaw yokkal naa la une heure de temps nga may nuru ku jëm guerre sol gan dóor sa masque boo xam ne muur na sa kanam gi mais du nii masque day yem bakkan ngeeg gémmin gi doy na quand même o Haaj Ibrahim ñetti ñettal rajo bi ak raxiis jóge ca kaw nderteelu ci suuf tombeek eh, Assane Cissé si ñoo ngi koy séen waaye kenn ñemewutaree si <laughs> comme dañ ko nar dàq si kontaan na ci xaaj Ibrahim naka mu jógee rek seen ñeent bët dajee si man ak yow fini ni julli tubaab bis na ko tey dàq naa la bëggatuma laa teg bët man ngay ree si ey eh, déedéet réew ma la action bi moo reelu <laughs> o oh, xaaj Ibrahim li ko naqari neexu ko tax na mu yëg ci kaw rajo ba xolam neexut ne gaañi merloo nanu ko ak xadar la yéegee ci rajo bi di waxtu rek da may ponto mais xam naa lu may def naa jël samay mesure madame Keneme directeur ran la koy waxal yow lu sa yoon lu la si o oh, Keneme del dugg lu sa yoon nekk Haaj Ibrahim wan ko gannaaw jubal pirigo ba te nag buteelu ndoxam bu sedd gi di gëlax gëlaxi yàlla tegul kenn lu mënul madame Keneme ah xanaa waruloo DG ku feebar du war mbas mi lëmbee réew mi kër docteur nee nañu put waratuta boobu madame Keneme ay Haji Ibrahim ku warul woor mooy ko am feebar bi santal yàlla yow dara jotu la DG mbate waarate kat xaaral beneen bés sama coono gii man maa ko xam su ma naanutoon ba dee tey damaa xaru taxaru daa xaraam dama jàngiraat cëm li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf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 ahlan bikum ca yàlla ñun fu ñu jëm ak korona bi juróom-ñett fukki doomu aadama ak juróom-ñaar yu bees am nañu ko niki démb ci Sénégal allah te mooy yéene kaay ñu ko xamal xam na ñaar ñu sonn ba yegg ci diggante dund ak dee ba tax yéene kaay bi na Sénégal weesu nañu juróom-ñetti téeméeru doomu aadama moonte fañ doon wax naan Sénégal ni muy xeexee jàngoro ji moo ci mën ci Afrique waaye fa mel yëf yi cat fa cee bëgg a dugg ndax léegi Burkina Faso ñun ñoo ëpp na bët bu setit nga dégg lim bi di gën a yokk tribune yéen a kaay na ko si jamono jooju hôpital yi war a faj ñi feebar ñoom hôpital yi ñoo gën a feebar ñaame korona ah, yaw seet hôpital ñay faj ca hôpital yi yu bëri xam nañ corona ñëwee nga quarantaine ba tax fajkat yi matuñu hôpital yi am jafe-jafe yu xaaj du jeex ci ay jumtuwaay jëwriin di Diouf Sarr bi ñu dénk wàll wi mel ni ku naan leen hey bàyyi leen li ngeen di wax waay jël na ñaari milliards ngir jëndee ko ay jumtuwaay ngir aar waa kër docteur ba corona bu leen dal kàddoom yaa ngi ci source ay yéen a kaay le quotidien yéen a kaay na ko monsieur ministre li nga wax noonu weddi wuñ ko waaye gis nga hôpitalu Fann moom ko wax di faj corona ba corona dal la xam nga ne xay rombul loolu si di quotidien na ko ma corona bi ndakaaru njaay moo ko ëppale ci Sénégal Touba mooy ñaareelu dëkk bu ëpp corona ci Sénégal moom presque moom fa débordé juróomi téeméeru doomu aadama ak fukk ak juróom-ñaar corona tëral na leen lalu hôpital te juróomi téeméeru lal moom lañ programme woon jëlle la naa nag hôpital yi jafe-jafe yi ñu am manque ay fajkat machine yi ñuy nokkee fukk ak juróom lañ ci am diiwaan yi am corona foofu moom danger lu garaaw a fa nar a xam ndax dara dara amuñ ko ci jumtuwaay professeur Seydi nag nee na woon nañ moytoo yegg junne junney doomu aadama yu am corona bés buñ fa yeggee ah gi dana jaxasoo làmbaay ñaaw direct 12 ne kon nag léegi man li ma ci xam jël ay nit ñu bëri defal leen test foogu leen na mënta ñàkk waa OMS yi sax loolu lañ santaane professeur Koumba Touré Kane ne sénégalais bu xëy génn koo dajek rek jàppal na am na corona nga moytu ko réewum Allemagne ñoom test gu yaatu gi moo leen musal ma dugg ci l'observateur fekk fa oustaz waaraatekat ba dugal corona diwaanu Sédhiou a yaaw seetal waa ji Arabie la nekkoon jàng ba am fa diplôme dem Louga takk fa ñaareel dem di nuyu ay gorom jàngoro ja fekk ko fa terewul faxe na ba génn fa jaar ci dëkk yu ba dugg Sédhiou wàll na ñaar fukki doomu aadama ak juróom libération na li ci garaaw mooy juróom-ñetti xale yu ndaw perantal wàll na leen ko te biñ ko waxee nga am korona foo waat ci alquran ne du dëgg sama noonu yaa amee pexel bi mu demee nag ba xam ne yëfi du caaxaan-caaxaan mu ne maa ngi jéggalu keneen ku jéggalu mooy benn tailleur bu nekk marché Ocass Touba fañ koo xool na ko ngaa am korona rek mu daw kos almet waaye mujj nañ koo jàpp source a yéen kaay ñu ko xamal libération na ko am na lu gën a garaaw foofa ca Touba centre Daaru Marnaan ba fa xam ñaar ñu am korona ñu dugal leen fa ñu def ay audio whatsapp ne ñoom dara dalul leen fañ leen faa téye rek ci afru xam naan corona bi ñuy wax ay toppaleeg naxaateeg yu ñàkk fayda la ba ñaari audio yooyu sénégalais yëpp presque déglu nañ ko tasaara nañ ko bi leen kilifa yi téyee nag na leen li ngeen def ni du seen cër ñu ñàkk fayda ngeen bu leen dara dalutoon kenn du leen fi andi xanaa xamu leen na corona mun naa nekk ci sa yaram wi te doo feebar yaram wi du tàng dara du la dal fekk doomu jàngoro jàng ci biir léegi bu ñu la fajut ngay xëy mu daana la fekk wàll nga ña nga dëkkatoon lii moo tax ñu àndi leen fi ñu mujj ngi ñaan ngeen jéggal ñu dañoo tiit rek xamuñoo lu ñu wax bay tey lam ñu waxaat moom libération mooy soxna si nga xam ne fa jógee Guinée dem daaba fa xëy na leen maa ngi jënd ndékki rek kos almen moom it daw waaye jàpp nañ ko de nay leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy banque ba ñuy wax BICIS ca diwaanu Kaolack ndangaan tëj nañ ko fermé karaj ah waa ji amoon corona Dakar andi ko Kaolack fa la doon liggéeyee l'évidence yéen a kaay ñu ko xamal raxas nañ ko nag jël ay jumtuwaay bu lépp yembee danañ tijjiwaat banque ba Cerno Amadou Ba ci yéen a kaay bi ne man couvre-feu bi laa bëgg mu commencé 18 heures kañ lay école di commencé waat le 4 mai syndicaliste yi nee na loolu mënta nekk ayaw ah, settal ñetti millions ak genn wàllu élève ñoo am Sénégal junnee jàngalekat ba tax Abdou Fati ne ñooñu bu corona duggee ci seen biir bomb bu kalaata la kàddoom yaa ngi ci enquête yéen e kaay jëwriñ ju ñu dénk wàllu njàng meeg njàngale mi na leen hëy wax ji jaru bari école moom pour ñu jàngaat weeru soin moom lañ gën a am yaakaar waaye fii ak soin moom xalxalaatut ko kàddoom yaa ngi ci l'observateur enquête yéen e kaay ne Sénégal it boo moytuwut ceeb dana fi di wax séddale gi jëm ci askan wi ko démb jëwriñ ji di na fa bëgg lépp jaar ko yéen kaay ma ko waaye Idi Thiam bi ñu wax ne genn wàllu suukar si yëpp marché bi moom lañ ko jox ak diwlin gi ba fi ñuy wax ak yéen Idi Thiam séddalee gut benn suukar waxuma la ak diwlin am na ñu doon wax nag nag amut stock bi moom nday mbili gi nag Idi Thiam bi ko journaliste yi laajee waaye yow gars yi tuuma yi ñu lay tuumal ak li ñuy wax ni yëpp loo ci tontu mu ne leen man damaa amul lenn lu ma leen di wax gis nga dossier bii waxuma ci te bëgguma cee wax xanaa wax day jeex ña wax jafe yi leen corona andil mooy wéykat yu mag yi ci Sénégal ayaw seetal jëwri juñ dénk wàllu aada cosaan moo demoon seeti leen coon sekk nee na sonn naa mu ne ko léegi sama facture yi yow laa koy jox ngeen fay ko mënumaa fay sax fi mu toll lu yaas ndax am na ñoo xam ne si ñun mënuñoo fay sax xëdd ku ma laak facture Youssou Ndour ne wax dëgg yàlla jaaxle nañ te yaakaar a nga bëgg a tas Omar Pène na ko man am na ñu may liggéey waaye tey xamuñ lu fajee seen soxla Baaba Maal ne ñàkk neen ay téeméeri téeméeri million ndax corona bi Ismaïla na ko monsieur le sikki ma lakkandoor yëf yi fépp dakkal na ko ne na c'est fini ndax corona bi Jules Balde waa sunu lamb yéen a ñoo ko laaj loo xam ci combat ama ak Modou Lo mun a leen gis ngeen bu leen ñu foxantoo fii kenn talut fi ay komba komba bu mag bi kay mooy ñu guerre fexe fee jëlee corona turbine yéen di ñu xamal na benn diplomate kilifa gu mag Sénégal am passeport diplomatique teg nañ ko loxo ca réewum Gàmbi ndax fañ ko tuumaal na fa tëddee yegg ci xale bu jigéen bu amul fukki at ak juróom-ñett ba tey yéen a kaay bi di ñu xamal ca yoof ndakaaru benn camion yi moo fa saaraar tampon hab miir yemut fa camion ba jàll sàll nappaaje benn soxna ak domam bu jigéen ñu faatu ñàkk seen bakkan allah waa ma ne chauffeur yi leen ñu ngir yalla corona yi limuy ray rek doyna bu leen ci yok dara keur Adel Pambo Le Coloc sédiment ñu leen di jaay ay ginaar yu baxa bax ay neen ay poussin aliment volaille ak aliment bétail ripaas bu bax bi la leen wax ak seen place yu bari yi nekk ci bir kaolax Ndangaan téléphone 77 322 52 18 ñoleen don may li ci yéen kay kaay ko bu baxa bax mom El Hadji Seydina Seydina Omar Cissé jaajëfal ko moom nekkoon ci xarale gi di ko du sekk madame Keneme jaajëfal leen yéen itam fare woon ci déglu bi ñaanal leen kenn dalu jàmm di ko sàkku ci yéen jaagin jëf